من قم الليل ولا ردت سائلا قط لناسخة مرجوة خيرها معمول الشرين يا سيدنا الإمام الله فهم سالخات اسمها قد لقيب لها بجلد النار القوم سالحات قد خدرن معجزات ولها محمودة kon bët mu rëy ma làqu woon joxuntu ngor ma waay nekkete booba leeri neen la woon bu weddi kaay kon mu rëy ma làqu woon joxuntu ngor ma waay nekkete booba mbóot mu rëy ma làquwoon ci xuntu ngor ma waay ndekete booba leeri neen la woon ku weddi kaay mbóot mu rëy ma làquwoon ci xuntu ngor ma waay jàpp woon ci xuntu gor ma waay ndekete booba leeri neen la woon ku weddi kaay woon mu rëy ma laa ku woon ca xuntu gor ma waay ndekete booba leeri neen la woon ku weddi kaay billaahi ba daadu bismillaahi modalon cokor ca ngor na ngeen ko gëstuwaay buntu boobaay asalaamualeykum taala wa barakatuhu asalaamualeykum mboolem eh, ñu ngi di nuyu di leen sant di fas yéene yëkkati ay kàddu su turu daayira maam Kumba Ndoy man mii teew fii di wax ak yéen man may El Hadji Ibrahima Thiaw président d'honneur daayira Maam Coumba Ndoye maa ngi sàkku ñaan tamit si képp ku may dégg si chaîne Mboolo TV nga dolli ma ñaan si taxawaay bi ak fonction bi ñu ma jox ma war ko exercer si daayira Maam Coumba ñu ngi am mbégte tamit di célébrer suñu trente et unième année si création daayira Maam Coumba Ndoye euh, daayira Maam Coumba Ndoye nag ku ko dégg xam nga ne daayira bu yàgg la muy waajuru Seydina Limaamu la alayhi salaatu salaam mi nga xamante ne moo meññ Seydina Limaamu Laay Mahdi al Muntasar yonente bi yàlla bi euh, ñu am kontaan lool tamit di invité mbooloom mbooleem doomu aadama daayira bi daayira bu mag la daayira bu am ginnaaw la daayira bu am taxawaay la daayira bu am pas-pas la jàng yi nag ñu ngi koy organiser fii si nga Ngaparou muy samdi 12 mai 2018 muy bésub ñaan bésub zikar bésub ndokkale mbooleem jullit mu nekk ci àddina bi rawatina yoof ak environ yi euh, daayira bi nag suñuy waajur lañ fi nekkal muy ay jigéen ak suñuy ndijaay ak suñuy pap xale yi nag ñoo ëpp ci daayira bi moo waral tey jii bu ngeen seetloo

ak képp ku amul yéene tamit ñëw si daayira bi te yàlla dogal jotuloo ñëw ñu ngi leen di ñaanal yàlla lépp luñ si jëlee si yiw yaa ngi ko bokk ak mbooloom doomu aadama loolu mooy suma waxu ouverture si daayira bi man ko mën doy sant nañ leen gërëm nañ leen waa Mbooloo TV tamit ñu leen di ñaanal yàlla seen taxawaay ningen di couvrir cérémonie yi fi nek yëpp yàlla ne yàlla def ngeen am télévision bo xamantene bu mucc ayib la yàlla yok len ci zahir asibatin yalla jappal len yàlla jappal len ci sen liggéey alhamdullilah rabbil alamin salatu wassalam ala rasulillah alhamdullilah bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله أكرم الرسل وخير العالمين وجعل أمته أكرم الأمم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد جنابي bi ñu ubbee ko ci turu sell di musu tamit si seytaane kat boobu muy iblis euh, ñu ngi ubbi suñuy kàddu di waxtaan wala di wax si turu euh, daayiru Maam Coumba Ndoye di wax timi turu président bi muy Mbay Ndiir lai di mam bendir, Ndiir ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla bi yal na yàlla oyofaleen bi ci kawam ki ñu ñaanal tey jii nag muy soxna Maam Kumba Ndooy di ki nga xamante ne nii mooy waajuru Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam te bàyyi moo tànnal xeet yu boppam mu ne lama aradallahu nuzuli nazartu fii niswatil ajamiyin wa ma raaytu astru وألبسوا من نسوة الليبيين والليب خبيلة من ولف نوتيين ساكنين على ساحل البحر كون بايلا عليه الصلاة والسلام ومجوغي يسرق نانا بايلا نمي سمك نيوسي أدنى نانا نصرت دم خول من نسوة الليبيين سيخيتو الليبو تاكي سما لو أبو سترة الليبو te lébu giir la si olof kon loolu moo tax mu ne bi sababi sitrihim wa si lubsihim nazaltu minhum ne seen sabab suturlu ak seen sabab sàngu moo tax ma wàcc si ñoom soxna ku mënoo na nekkoon soxna soo xamante ne yi soxna su am solo soxna su baax soxna soo xamante ne itteem yëpp mooy toppatoo nit ñi toppatoo nit ñi toppatoo doomu aadama yi rek moo nekkoon itteem moo xari xaari xawaan ak tabaaxatul li duyof dan to garek di jagat njam di joxe moo tax mu ne wa ummuhu saalixaatun ismuhaa kumbandooy bi jagata kon sonu kumbandooy ku sell la ku mënoon jox joxe aw ñam la dan genn di joxe ñam di joxe ñam buntu ke jagata in lam yakun indaha dayfun fataliba taaliba mahdi alayhi salatu wassalam inda jihad dan bu fekkee ne am eh, gan sax da daan seen moom Alassane da daan génn yam si milan aw mi nii te ay kilomètre kilomètre pour ut pour ut ay mur ñu ñëw euh, lekk si biir mi xéwlu si xéwalam yi kon donc moom nit ku sell la bésam bii nag tey jii bés la boo xamante ne nii yàgg nañ ko taxawal comme ni ko Ibrahima waxe yàgg nañ ko taxawal ñu ngi ñaan yàlla di ko fekke at yu bari at yu baree bari bari yàlla dool ñu jubaale doole jubaale xol yi Euh, doole jubale mbir yëpp masalika laa bi Aziz yomb na suñu borom yaa nekkee barke Baye lay Seydi euh, li nga xam ne mooy jàng yi nag tey vraiment ñëpp kontaan nañ si du jàngi laayeen kese jàngi dëkk bi yëpp la ñëpp ko bokk te si ñëpp waaw ñëpp lañ si oo waaw maa mbay ndi nag ma waroon a wax wax ji waaye nag euh, dafa jàpp fi mu toll nii moo tax mu délégué ma tey ne ma léegi ma wax ko si kàddoom vraiment kontaan nañu ñëpp kontaan nañ lekk yu bëri war waa ndoyéen yi naan gi bëri na tabaarkalla macha allah yal nañu ko yàgg a yu bëri war may seede bu jot bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina muhammadin salallahu alayhi wa wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ñu ngi présenté wu ci guddi gi nga xam ne mooy guddi maam ku mënul nag mooy yaay Seydina Limaamu Laay juddoo fii penc mi quartier bi dëkk bi gu dem nag yoof gépp ak moom du guddi kenn yoof gépp ak moom kon képp ku dëkk yoof war na nga ñëw ci fekk ko parce que Seydina Limaamu ootawul fenn yoof gii la ne ajiboo daay lay yaa machar insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum bu baax la nag yàgg na lool kon ñu ngi ci oo ñëpp amul murit amul tijaan amul xaadir amul layen képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadu wala anna muhammada rasulillahi loolu ñu ngi la ci oo nga ñëw teewe ko di ñaan suñu borom yàlla ñu yàlla may ñu fekk ay ati at at ànda wér ak wér la jaay Seydina Limaamu Laay maam ko ma nag wax ci moom dafay xaw a jafe lool parce que géej la te yaakaar na géej moom ku ko bëgg a xuus di nga sonn moo meññ Seydina Limaamu Laay ba bàyyi laay oote nag fekku fa maam Kumba waaye ba maam Kumba Ndooy àddina ci la bàyyi laay oote oote bi naa ji boo day lay yàlla mooma yónni ci yéen ñii ñii di ko topp ñii nga topp ñii di ko topp ba tey ñu ngi si cent trente huitième appel mu mu yemook guddeem gii tey ñu koy guddi maam Kumba yi kon ñu ngi ñaan si borom yàlla ñu ko commencé si bismillah rahim jéeg ci alhamdulilah rabbil miin képp koo xam ne kii dëkk nga yoof wala fudul yoof ñu ngi lancé appel soofu ma ne teew nga ñëw fa parce que yàlla moo xam ne yaa ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa rasuli isa daakum li bayikum yéen ñu xam ne gëm ngeen wuy leen yàlla ak ab yonentam bu ñu la pour lii dundal seen ruu te lii bokk na ci lii dundal ruu ñëw fekk ko kon ñu ngi ñaan borom yàlla nañu yàlla may ñu fekk jàmm ak salaam ànd ak wér képp ku fi ñëw yàlla yàlla jégal say bakkaar képp ku bëggoon ñëw te mënuloo ñëwit yàlla la yàlla jàppale la dafa la su yàlla zaahir baatin yàlla may ñu fekke ay ati at at ànd ak wér wérle xanaa kay ma may baaba baaba ngi toog ma may ko mos moom it sët li ci moom mu wax ci li mu xam ci moom wala quwwata illa yi ñu leen nuyu di leen ziar eh, di leen ñaanal suñu borom dafa leen xéwal defal ñu ko di wax ne rek guddi gi euh, ñuy defar ni muy guddi maam ko mondoy alayhi salaam oo nañ ci ñep ñep gis nañ appel bi bande annonce bi ñep gis nañ ko actuellement ni ñi wax ak yeen ñu ngi ci am plein préparation sha allah euh, ñep tew nañ mbokk yi ñew nañ waañ yi togg nañ defar nañ bu baax ma sha allah euh, nañ def lepp teraanga yi ñëw nañ fi euh, muy loo xamante ne def yokk la rek def yokk te borom guddi moo tëdd noonu maam ko mu ndoy nag euh, comme ni ko imaam waxee rek géej la waaw géej la loo xamante ne euh, neexul xuus waaw da ci siy cof rek di laal ci li nga xam daal li nga mën a wax waaw waaw donc euh, di oowaat ñëpp rek ci guddi gi ñu teew xam ne du guddik euh, daayira Maam Coumba Ndoye rek guddik Yoff gi yëpp guddik Cap Vert comme ni ñu ko waxee woon ñaan ñëpp teew man it euh, comme nu ma ko oote woon rek ci bande annonce ba bëgg naa vraiment axlu bayti bi képp ku nga xamante ne soxe nga ci Seydina moom alayhi salaatu wassalaam nga ñëw taaral ñu guddi gi li nga xamante ne yéen a ko moom ngeen ñëw euh, teeral ko taaral ko teeru gan yi dalal leen parce que nit ki lu mu bokk kenn du ko ci oo xanaa duñ ko ci jooy rek nit ñi bëgg nañ vraiment ahlu bayti bi ñëw teew euh, gis nañ tamit ay teraanga yoo ne vraiment jóge na ci ahlu bi ñëw fi maanaam euh, parti seen guddig maam mais li gënu am solo mooy seen teewaay seen teewaay parce que ku xam doom ni mu mel si yaay ak yaay ni mu mel si doom nga war a ñëw mën a toog taxawe guddig maam ko moo doy muy wéy juru Seydina Limaamu nga xamante ne moom la ñëpp yaakaar adduna ak àllaaxira donc ñoom ak lu wéytu ñoo ci war a jiitu ñoo ci jiitu ku ñëw fekk leen fi ñu dalal gan ñu leen si jiw man daal vraiment man moom loolu moom moom laa bëgg gën a jox cër njàng yi waaw salaam leen baal maax di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal ko nga xam te ñoo ko taxaw yàlla leen dëgëral di jox xéewal yi ñu ngi ko di ñu baree baree bari xéewal yi nga xam te moom ñu yëpp ñu bokk xéewal yi ñu ñëpp macha allah. wax bi nag daanaka imam Bouré wax na lépp euh, damay wax ne rek man fi mooy ëtt maam dëwu fi laa yaroo waaye mag ñi fi nekkoon ñëpp ñu fi def si mag si bàyyi ku mel ni bàyyi Moussa si la moo fi nekk ak bàyyi Abdoulaye Ndoye waaw ah, ñu nga xale yi ñoo fi nekk rek di taxawal guddi gi guddi gi nag guddi gi yof gépp la comme ni ko imam Bouré waxee rek ñu ngi ñu ngi ñaan ñu tàmbali si bisimilah rahim jeexal sa alhamdulilah rabbil alamin kon ñu ngi ñaan sanga yi ñu sànni ñu ñaan waaw ahlu bayti rasul su ko defee rek ñu taxawal àgg liggéey bi incha allah mottali ak jàmm. bés bi day wax dëgg yàlla bés bi li ma si bëgg a wax mooy bés bi bésam mbégte la ndax ku xam ku xam maam ku ma doy xam ne bésam tuutiwul ah di si rendre la hommage suñuy disparus yu ñu am membre yi ñu am nii. ñi ngay gis ni si tiset yi ñoom ñëpp ay membre membre yu am solo la woon yu bokk si daare bi kii Assane Looy la ñu koy wax tra suñu yaay jéegu ak suñu papa Mbay Ndooy suñu Baye Bassir Ndooy mi nga xam ne ne mooy woon président daare bi kii soxnaam muy yaa ayti Thiaw Ndooy ki ma fay gool nii di bàyyi paati ndóoj ak suñu yaay Xarguita Seck ñu leen ci rendre omage di ay membre yoo xam ne yu am solo lañ bés bi nag bés waa Yoff bépp la Yoff gépp ko bokk parce que ku ne xam ne ne maam ku mu looy fii Singapour la cosaanoo kon bésam yaakaar naa ne bésam waa Yoff ñëpp la rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk fii nga Ngaparou waaw ñuy am mbégte di am kontanté waaw di am mbégte di am kontante ah mënumaa dëkk wax te gërëmuma wax dëgg yàlla waa daare bi surtout xale yi xale yi ñu am pas-pas lañ ñun ñi nga xam ne ñoo leen fii te mag gis nga ñu nii lépp dañu toog bàyyi ñoom ñoom ñooy def lépp ñooy def lépp ñun daal lañ topp seen ginnaaw rek dañ am di leen gërëm di leen sant ah yàlla def ndëg si 2018 bii ñu falaat président bu bees président bu bees bi ñu fal ndëg ñu koy ñaanal yàlla li nga xam ne ne moom la jiite yàlla jàppale ka si defal ka si ndam waaw ndax ku ne xam na jiite mbooloo dafa metti mais nag a ah, dañuy ñaan rek yàlla jàppale ka bés bi nag ñu ngi dugg nañ si si jàmm may ñaan yàlla na si génn si alhamdulilah di ñaanal bàyyi njiit mi nga xam ne mooy taxawul guddi gi yàlla may ga pass pass ba mu dugg ci guddigi génn ci ci jàmm yeen bal ma akhu wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ۖ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله أ...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 من شر الوسواس القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكفر بتلاوتي عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا قدم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شهو أو نسيان أو تخريف أو تقديم أو تقدير أو زيادة أو نقصان أو تخويل على غير ما أنزلته أو تسجيل عند تلاوته أو كسل أو زيخ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إدغار بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألقان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تحتم لنا بالشر وضلالة وطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أجل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعطي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقم ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أقداننا وزغاب غمومنا وقائدنا وصائقنا إلى جنتك جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا بالسعادة آجالنا وأخطه بالزيادة آمالنا واخرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تهواك زادنا وسقط بك زخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف والفتنة والفقر والمرض بلادنا السنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف والفتنة والفقر والمرض بلادنا السنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وأمن من الجوع والخوف والفتنة والفقر والمرض بلادنا السنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأنا ونور ما تلونا لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومصائحنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام الله المهدي المنتظر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 اللهم افعل بي وبهم عاجلا واجلا في دين والدنيا والاخره ما انت ذو اهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن ذو اهل انك غفور خليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من والاموات انك مجيب الدعوات يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار اجبر قالي على وقف مرادك ولا تجعلني جبارا على عبادك انك على كل شيء قدير الحمد لله على سر الله في سر الله بسر الله وسلم على نور الله في نور الله بنور الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدعاء وملك الله الحمد لله على سر بسم الله الرحمن الرحيم في سر بسم الله الرحمن الرحيم بسر بسم الله الرحمن الرحيم وسلم على نور بسم الله الرحمن الرحيم في نور بسم الله الرحمن الرحيم بنور بسم الله الرحمن الرحيم عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدعاء وملك الله الحمد لله على سر لا إله إلا الله في سر لا إله إلا الله بسر لا إله إلا الله وسلم على نور لا إله إلا الله في نور لا إله إلا الله بالنور لا إله إلا الله عرض ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام الكلام yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla nga nangul njoolu kaamil yàlla yàlla nga def jàng yi muy jàng yu sax dëkk lool barki bàyyi lamte bi képp ku bokk ci daayira bi yàlla yàlla nga yokk suturaam képp ku dëkk si dëkk bi yàlla yàlla nga yokk suturaam képp ku nekk si bitim réew te bokk si daayira bi wala muy soppeeb dëkk bi wala muy soppeeb daayira bi yàlla yàlla nga def defal ko tawfeex defal ko tedd nga ak sutura ak àdduna ak àllaaxira yàlla yàlla nga yàggal fi suñu xalifa ak mboolem bépp xalifa bu jiite uutu maamam si sees mu nekkoon yàlla yàlla nga defal ko jàmm defal jàmm defal defal jàmm kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nut suñu wéyjur wi suñu biir di imaam yàlla yàlla nga defal lépp muy taw feexam seen seen jiit gi mu jiitu fi yàlla ba mu doon suñu mu jëg jiite yàlla na nga yàgg suñu kanam yàggal yàgg jiite dëkk bi di ngapparu barke bàyyi laay mu tedd mi defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit yàlla yàlla nga yàpp ko lislaam yàlla yàlla nga nasaxal kéefar yàlla yàlla nga na saxal kéefar yàlla yàlla nga na saxal kéefar yàlla yàlla nga yokk diine lislaam yokk ay jëwriñam barke bàyyi la mu teddami defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit faj aajo yi bépp ab jullit yàlla yaa xam jullit yi ni ñu toll si kaw adduna bi ak fu ñu ne si kaw adduna bi yàlla yàlla nga fekk leen fa ak seen dimbal ak sa yërmande ak sa teewaay barke alxuraan mu karim yàlla yàlla nga jàmmal jàmmal mbooleem jullit guddi gi ñu fas yéene taxawee mu Seydi Maam Libaas nga taxawee yàlla yàlla nga defal ko jàmm defal ko tawféex ba lépp lu muy wax du génn sariyatul islaamiya barke bàyyi laay mu tëddam yàlla yàlla nga def ko mu dugg ci xoli jullit di barke bàyyi laay mu tëddam defal ñu jàmm defal ko mbooleem jullit yàlla yàlla nga di barke bàyyi laay mu tëddam yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew jullit yi barke alxuraanu karim yàlla ñu ngi lay ñaan sama gaay ak sa teddanga yàlla yàlla nga defal ñu jàmm yàlla yàlla nga defal ñu jàmm yàlla yàlla nga defal ñu jàmm defal ñu sutura barke bàyyi laay mu tedd yàlla yàlla nga defal ñu sutura si Seydina Limaam doon ñaan yàlla yàlla nga wesaare ko si dëkkam yi nga xam ne ñoo fi doon nekk bokkoon si daayira bi di membre yi daayira bi di ñoon sosoon daayira bi te jiitu yàlla yàlla nga yokk seen yërmande lewetal seen kanam leeral si leeral lewetal seen ginnaaw te leeral seen kanam barke bàyyi laay mu tedd yàlla yàlla nga def leen ñu bu ñu jéppi barke bàyyi laay mu tedd ñu fi bàyyi muy am ndono yàlla na continuer barke bàyyi laay mu tedd mi barke bàyyi nga defal leen ñu nekk ña ngay béel ca biir aljana barke bàyyi laay mu tedd mi yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla nga yàggalal ñu fi suñuy kilifa ñii nga ko daayira bi yàlla nga def seen sutura defal leen yokk seen sutura barke bàyyi laay mu tedd yokk kilifa yi dëkk bi yokk leen xew-xew yi am si dëkk bi yëpp di xew-xew diine yàlla yàlla nga taxawal dugal sa loxo barke bàyyi laay mu tedd yàlla yàlla nga muccal ñu seytaane yàlla yàlla nga muccalu si seytaane muccalu si njabootu seytaane muccal ñu koy doxal doxi muccal ñu si wàllu yu seytaane yi barke bàyyi laay mu tedd yàlla yàlla nga defal ñu képp ku baax mu dajeeg ñun si barke bàyyi laay mu tedd mi defal ñu jàmm defal ko mboolem julli barke allahumma najjina ma hanna jina wala tuxlinna ma alhalikina safan sana wal mulku daim imam mursalin allahumma sabitna bi kalimati la إلى لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا

ku ñëw mu xool la delluwaat sa biir di xool bàyyi laay ku ñëw mu xool la delluwaat sa biir di xool janeen ba soxna kumba ndooy mu laab ñi dong matta yaay ca xuntu ba ma waay ndeke def bàyyi laay ku ñëw mu xool la delluwaat sa biir di xool ku ñëw mu xol la delluwaat sa biir di xol bàyyi laay ku ñëw mu xol la delluwaat sa biir di xol ba soxna kumba ndooy mu lax ni dong mat ca yaay joxuntu ngor ma waay ndekete booba yaay mam kumba jooja jamono kumba jagata mam kumba ngir da yohi ñamam ñi xiif du leen ka jaay joxum du war ma waay ndekete booba maam kumba jooja jamono kumba jagataana siira billaahi jooja jamono kumba jagataana siira maam kumba jooja jamono kumba jagataana siira woon da daa joxi ñamam ña du leen ka jaay joxul du ngorma waay ndekete booba di boobu ñi tàmbu leen ma ne jur di yéen di boobu ñi tàmbu leen yéen jur di bootu yéeme yéen ñi géen ñi sàmmu wallaahi jur di bootu yéeme yéen ñi géen ñi sàmmu talaahi jur di bootu yéeme yéen ñi géen ñi sàmmu buurukat yi ñoom la seeni doom di làqukaay joxuntu mamaay billaahi ba mu ñëwee ba woote nit ña ñëw mu sañ leen ba mu ñëwee ba woote nit ña ñëw mu sañ bao nhiêu mu bao ba woote nit ña ñëw mu sañ woote nit ña ñëw mu sañ leen tàbbi leen ma jiite nekk naa rasulullah joxun du war ma waay bilaay ba mu ñëwee ba woote nit ña ñëw mu sañ leen ba mu ñëwee ba woote nit ña ñëw mu sañ leen bilaay ba mu ñëwee ba woote nit ña ñëw mu sañ leen asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ne ñu ngi nuyu sa tur ak sa sant di leen ziar bu baax a baax su mbokki laayeen yi tey nag ñu ngi fii ci bayaalu ngapparu euh, ci édition 2018 muy kan muy jàngi maam Coumba Ndoye yi nga xam ne dañ koy amal saa su ne euh, chaque ñaari at ne dañ koy daal di amal muy jàngi maam Coumba Ndoye yi euh, ñu ngi ko commencé nekk 1987 xam nga ne 1987 ak léegi yàgg na ba ñi ngi def ñaa ngi Maam Coumba Ndoye yi waaye xam nga ne ba tey 1987 ba 2018 ëpp na fanweeri at ak benn waaye li ko waral mooy dañuy def chaque ñaari at dañuy jàng dañuy jëlal par ñaari at di jàng kon 1987 ba 2018 lañ commencé jàng yi boobaak léegi muy 31e édition 31e édition euh, ñi ngi mujj a jàng nekk 2015 2015 ak léegi xam ngeen ne 2015 ak 2018 ñaari ñetti at la ñetti at a ngi ni ñu toog jànguñu maanaam 2015 lañ mujj a jàng ba 2018 ñu soog a commencé waat. di jàng muy jàngi maam Kumba Ndooy fii ci Baya Lëpp euh, Ngaparou ñu leen nuyu waat baax baax suñu mbokki laayar yi kon luñ def lu ma ànd ak Mbañoon sama caméraman ak ki nga xam ne mooy Ibra Fall duñ def lu nag Mbañoon ñu daal di jaar ci soxna yi laaj leen naka lañ gisee jàngi maam Kumba Ndooy yi nga xam ne mooy am sag ñaari at fii euh, ci Bayaalu Ngaparou nan nga tudd wa di sante yalla rek ci biñ ko fekke ci besu tay bi suñu besu maam ju tedd yi maam kumbandooy lay di ñaan yalla lepp luñ fi ñaan ci besam bu tedd bi yalla naka yalla nangu di ñaan ci yalla bes bi ñepp ñu ci contane ñun ñepp ci contane di ñaan yalla yalla suñu barke maam wacc si ñun ndax jangay yi yaay ñoko daan def suñu yaay jóge fi ñu taxawal ka di ko def ñox suñuy càmmeñ waaye dara ñaawu si dara yàqu si ba léegi di ñaanal maam jiin maam jiin mi nga xam ne mooy taxawal guddi gi yàlla yàlla may wér may ko fan ba gudda ax ah, muj gu di ñaanal Baye Ablaye Thiaw xalifa général bi fi nekk yàlla na yàlla may ko yàlla guddal fanam ndax bés bii maam Alassane Laye Seydina Maam moo ko daan taxawal di ko def ni mu ware mu jóge mu jox ko Baye Njin Thiaw Baye Njin di ko def ni mu ware ñu koy ñaanal yàlla guddik tey gii yàlla na si dugg si bisimilah àggale ko si alhamdulilahi rabil alamin hmm? dégguma journée bi neex rek lépp luñ si war rek def nañ ko def nañ ba mu baax togg nañ ba mu doy julliti yàlla yi ku war a kontaan rek kontaan ko si bés tey bii ñaan yàlla yàlla nañ yàlla jàppale ñu fekk ka ay déwén déwén lépp luñ ñaan si bés maam bi yàlla nañu ko yàlla may may ko mbooloom jullit loolu rek laa si doon ñaan. Caan Mbengue laa tudd kontaan tak bésu maam Coumba kontan nañ si lol di sant waa di len sargal si yonni bi nga xamantene mom la sayyidina limamu yalla yonni ni fi ci bir yof Yoff dañu kontaan daal ba ñoo wax ñuy ñaan yalla rek yalla na yalla àggali guddigi lepp luñ fi ñaan yalla nangu ko si barke sayyidina limamu la al salatu wa salam. ñun day gam nañ ne yàllaa ko yónni te mooy rasoorulaay te tey jii yàlla firndeel na gën na firndeel daal yónni bi mu ko ndax dañuy raxas salaat si xale yi dañuy raxas salaat si ba mu yàgg ñu gis si ñu bind si salaat si Seydina Muhammad rasoorulaay sallallahu alayhi wa sallam. ah dama ne suñu borom yàlla bu jot. mu ngi gën a firndeel nit ñi ne Baay Laay moo ko yónni mooy rasooru laaxi tey jii bésam yaayam ju tedd ji maam dañuy raxas salaat si ñu gis si salaat boo xamante ne dañ si bind Seydina Muhammadu rasoorullaahi sallallahu alayhi wa kon nañu nangu rek te xam ne mooy rasoorullaahi. ba ngeen gisee salaat boobu nan ngeen def. ah ba ngeen gisee salaat bi salaat ba ngeen ko gisee nan ngeen def. ah xanaa ñëpp barkeelu si. xale yi foto nañ ko dugal ko si portable yi waaw. Oh, maam Coumba Ndoye bi noo ko gisee. sant yàlla julli si Seydina Limaamu Laay ay ati ati ati at. guddi gi guddi gu la su ñoom. gu ñu fonka ndax sang bu yaay sang bu tedd bi ka tax ñu di ko def ngi ñaan di ko teewe at bare bare bare guddi gu ñu fonkal si biir nga paru noo gisee journée Mame Coumba Ndoye bi journée Mame Coumba Ndoye bi rek kontaan nañu yoo dëgg yàlla tu waaratu bi rafet na te Mame Coumba Ndoye day joxe lekka yaatu na si lekka baax na ñun ñu ngi dëkk ëtt maam Kumba Ndooy te ñii ñëpp lii lañu surtout maam Kumba Ndooy lañu di nekk ni ma xool dafa fees mënuma wax sax ah jàppali mbengalaay noo gisee tey si guddi nga xam ne mooy guddi maam Kumba Ndooy xanaa ñu defar ko bu mu baax ndax mooy sunu maam ndax kumbaay sunu maam ndax Kumba Ndooy ak ki jur sunu maam ñoo bokk ndey ak baay mu dëkk fi si ëttam Ndooyeen ñu di nekk ay setaatam ñu waral bés bi tey di ko defar ba mu baax barke Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wa salaam moo woy Seynabou ah? waaw. man na fanweeri at de. waaw. te rek. taxawaay biñ si am daal mooy jàpp daayira bu bu baax a baax. te dox tey di ñaanal suñu maam Coumba Ndoye yàlla taas ñu si barkeem tey ñaanal daayira bi dox ci kanam. noo tudd. Hmm? Adja Walimata Ndoye. ah. ah gudd gi moom am na maanaa. am na maanaa xéewal yi bari na macha féete si wàllu dégguma li nga wax de. fan ngeen féete si wàllu organisation. bi moom macha allah moom organisation bi c'est bien fait. rafet na moom ah. waaw foofu maa ngi féete woon sa waañ wa fi doon toggee waaw foofu laa ne woon. Samba Ndoye ah. kontaan torop bég si lool ndax mooy sunu maam ndax ku mbaax góor gee bokk day baay góor gi jur Amadou Bare jur Ablaye Ndoye jur Dawud jur Kumba sama maam jur Koddu sama maam kon nag kontaan si guddeem ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Seydina jooju ndax bu dul woon moom. askanu Lebu dina réer waaye kontaan nañ torop ndax moo oote woon démb moo oote tey ngoon nag dañ kontaan daal si guddi di ñaan si guddi gi yàlla na si yàlla defal jàmm si barka mu tedd mi sunu maam loolu rek la ñuy ñaan yàlla def jàmm si Sénégal gépp

daayira Manko Mandoo bi nga xam ne nek fi ci Yoof kan numa def lu baye ko kaddu gi mu wax ni lan moy rolam euh, ci jang yi ku baax no tuddu Mbay ndoy Mbay ndoy di set si mam Kumba ndoy so do mbay wa kon ñu ngi contane lol di refet lu ñew bi yal yalla fay leen ndax ñun amuñu lu dul guddi gi suñu mam la te ay laayeen lañu ñu bokk di ko def ak quartier bi ak Yoof gep ñu ngi contane dekk di ànd ak daayira bi ak yoof ak laayeen yi nekk Sénégal yëpp di leen gërëm di kontaan si ñëw bi lool. léegi fàttali ko ñaata at ñaata at ak léegi mooy moom ngeen def mooy édition bi. lii mooy suñu 38e édition. maanaam fanweeri at ak benn. waaw. Ah, maanaam kon 1987 la. macha allah waaw. 87 ba léegi ñun. te bi ñu koy jël suñuy maam la ñu ko jëloon ñoom ñu def ko ay ati ati at ba mu egsi si ñun. ñu jël ko 87 ba léegi booba ñun ay xale waaw. ñaata at ngeen toog te jàngu leen dañuy jàng chaque deux ans biñ toogee 2015 la ñu jàngoon wala jàng 2017 mais booba date bi dafa jege ñëwoon ñu delloo ko ba waaw. lan moo lan moo ngeen toog par ñaari at di jàng. parce que maam Coumba Ndoye nga parul dëgg maam Alsaan Thiaw dëkk Tongo ren bu ñu jàngee. dewen Mam alsan Thiaw mi bay bi moy jang tongo lol motax motax ngeen koy def par ñaari at. par ñaari at waaw waaw. Ah, ah, kon euh, ginnaaw ñu ci edition 2018. 2018. euh mbal année ngeen fas séné jàng bu ko féké ak jamm ak salam inshallah allah jangé ren dañuy tëbal 2019 jangal 2020 inshallah allah waaw. ñu la jajeufal bu baax a baax. ñu ngi kontaan ci yoon lol yalla na yalla barké leen dolli leen xéewal man wayel fannu gudd ak weer. barke Baye Laye alayhi salaatu jërëjëf. kon Ibra ñoo ko noonu kon kooku moo nekkoon ki nga xam ne moo jiite euh, euh, daayira Maam Coumba Ndoye bi nekk fii ci Yoff.